mu mel ni Ndëkkëru ak Dakar ak Dakar Ndëkkëru mooy Kër Mbay Fall ak Kër Masaar Dakar mooy Pikine ak postu Thiaroye Dakar mooy Almadies ak Nord Foire koo dégg mu naan laa jëm Njaga ko yóbbu koo dégg mu damay dem Dakar set place moo ko yóbbu koo dégg mu damay dem Dakar Pajoro Mam Mali yaay Dakar